xaalis rek bis bu dugaloon xaalis bu bëri li des ci koor gi yëpp dootu mu ci dara <laughs> mooy doose waa kër gi nag a leen Sadia moom mu dugaloon xaalis bu bëree bëree bëree bëri mu jënd ay tàndarma ndogu hamburger ak shawarma <laughs> nee naa la kër Samb ak sama kër genn la yow war a woote ay ca départ ak kii doomam la manu mbe naka koor gi saa bi moom kay nii rek ci jàmm jàmm rek alhamdulilah bu koor gi ñëwee moom doo dégg bir doo dégg jàppal ma numbe wàccal ñànku andil ma numbe wàccal xale yi macha allah dëju rek dëju rek ana sàmm sàmm alaaji waaw mi ngi ci biir ay ca ay ca lan la lan la moom lañ soxla woon moom ngeen soxla pour lan ah, da ngeen am rendez-vous man maa jóge dëkk ba soxla woon ko daal waaw boo jógee dëkk ba lu ci yoon man ngooñ kaay mi kaay mi xanaa nekk toogat da ngeen di jékki rek jabaar ke rek ñëw nag ani sàmm salaamaaleykum eh. dëkk ba laa jógee. puusal buntu na ma puusal buntu bi. pataas waay puusuma buntu bi. booy da ngay puus eh, buntu de boo ci xàppalee ne. waaw wax rek moom danoo danoo sonn. Ah, bu ngeen sonn lu ci sama yoon. mën na ma puusal buntu bi. kër gii du mbay ga ba ku ku eh, jógee ci àll ba ñoo dugg fii pour lan mu fiy dugg. puusal buntu bi duggul suñu kër. bi. fii de ndakaaru la moo tax ngay def lii waaye bu doon dëkk ba nga def lii di naa ko ci yàlla du soo ko defati dama ne buntu damay dugg puusuma puusuma la la la la ma dugg bàyyi ngoñ eh, ah, kii sa baay la patas ak yow sa baay la kii sa baay la ak yow sa baay la eh ma eh, xoj lan ma dox nga ma sa baay la eh yar ko jaw yar wut de oh. ah, sama waay jàmm sama waay eh, ñëw <laughs> naa ñëw démb laa ñëw maa nga fanaan fële wër naa wër bay bëgg a def. wër na wër ba dàgg man mii la woo ma ma la ko nan. mu ne ma ma woo na woo. ah woo naa la sa numéro. mu sonné benn yoon jëloo ma mujj woo pataas mu jël ma ne ko la. xaaral ma loolu ay boori huit heures ci guddi. huit heures huit heures huit heures huit heures. mooy bi ndogoo ba pare rek. dañ doon ñaafi la. alaaji alaaji alaaji heure boobu nag heure ñaafi ah, la waaye. woo naa la portable bi xam naa moo. sa téléphone bi sonné benn loolu garaawul ko ko gis nañu rek baax na. alhamdulilah rabbil alamin na nga def sant yàlla bu baax. man lu me. waaw kii sa baay baay ngooñ la. ak yow sa baay baay ngooñ la. Baye Baye Ngoy mooy la. yow xam nga yaa ma gën a man man kay man kay naan la. man nu mbéy <laughs> baax na maa ngi ñëw. ayca maa ngi ci biir maa ngi ñëw. waaw ayca maa ngi ñëw dinaa ko rek la. waaw yow tamit ba bàyyi nag yow tamit alaaj alaaj waaw waaw yoo xam nga sama waaw waaw waaw waaw waa Zik Presse ah? baax na jërëjëf sama xol seet na jëw baax na jërëjëf waa ci kanam baax na jërëjëf bàyyi ko mu dugg mënu dugg papa papa moom mënu fi dugg waaw yow kër gi du may ga du may ga foo jógee ci àll ba dafa sori dugg dëkk ba la jógee jógewul dëkk ba bu jógee woon dëkk ba dina fa yor saak ku jóge dëkk ba da yor mbuus man sama soxla yàggut ci dëkk sa baay moo tax ma ñëw sa baay laa soxla sa baay laa soxla waaw waaw waaw waaw xaaral ma nekk la ko waaye dafa da dafa ci jàllo waaw nga ne ko na ma sama papa nee na nga abal nga nga jox ko benn rasoir benn rasoir waaw rasoir big wala rasoir lan big waaw moom rek non rasoir rek papa kii bu mu dugg ci kër gi teel ma fii tee ko ni bu baax doo doo fi dugg doo dugg rek jamaa demee ba ko dee jamaa rek bay doo dugg rek ak yow sa baay laay wax baay ma tax yow sa baay ma tax yow boo ma tax waay waay waay waay waay ma tax waay ma rek la problème sam nag wax ci xoolal may xoolal may ngoobi waay waay yow yàq nag waay yow ma rek la ko baay ma rek la ma tax wax sa baay de dama waay waay baay waaye duma moromam waay waay la nekk ci àll bi sa baay ma tax baay la ma tax may saaga ci loolu sa baay ma tax jóg mu xoj. waaw dëgg la. Ah! waay waay doomu xaj. waaw waay eh. oh, oh, waay déedéet nag. damaa woo waay waay bu mu wax doomu xaj. waay waay noppil kii. wa réewoo sax dinaa la expliquer. yow réewoo sax yow. bandi woo sax dinaa la expliquer sa ñaawaay bu doy bi. bàyyi non non dinaa la expliquer. yow xool nga sa baay waaw waaw tey ngaa dem eh, kër Pataas. xool nga sa baay tey ngaa dem kër Pataas. maanaam man dangaa ñaaw xool nga sa baay. déet yaa ngi may saaga nag. déedéet yaa ngi may saaga defal nag. déedéet déedéet yaa ngi may saaga kii bu may wax dangaa ñaaw yow mii yaa ko wax ne kii du sa morom canaliser sa morom mu yem benn place man ne gis nga sa baay ba naa ma da ngaa ñaaw. waaw déedéet nag bu bu bu waaw wuute sam ma ak yow. réewoo sax waaw waaw kii ba de. Samb man dama laa soxla. boutique ba. waaw boutique ba dama la. Samb ma tax a ñëw dinañu wax ci biir. damaa sonn ba rek. nga xooloo waaw xam nga jox la leen. rasoir waaw papa bu mu de. du dugg. ba ki yàlla bu duggee fii. du dugg bu fi dugg de. maa la ko wax. waxal fii demal ok fiche. dégg nga mu naa ma ok fiche kii nga war a ni wérul ñaari doom yu mel nii laa am yàllaa ma ci nattu. kii de booy boo yóbbu ko ndëpp ya moom. kii lii rek mënoo woon noppi mu def lii rek nga dugg. dama koo xamul woon. ñii ñànku ak mëndumbe ah dégg nga seen mbir moom kay dégg na dégg nga dafa mitti nii laa dëkke ak ñoom ñoom fa nga jëm duñ fa jëm waaw ah mëndumbe day ni ma ko gisee da ngay dem contre ni ko gisee nii tey moom waaw waaw xam naa ah, ne rakkaaj waaw parce que bu demee banaan banaa man di ma dima ma di ma di ay ay ay ay mala xam nga ne mëndumbe nag yàqu na doy ah, boobu bëggul faji ko déedéet nag kaay ma xamal la nag kaay nag nii la mel de ah fu ne faj naa ko lu ma yoroon def naa ko ci. ma ne kii ay ko koy faj de. waaw lii faju ko de. na nga def sant yàlla bu baax yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah gëj naa laa dégg. maa ngi sant ana seen waa dëkk ba. la laaj. waaw yaa gëj nag. wet googu gaa laaj laaj bay bëgg xam nga Ndakaaru moom. day day nangu nit da lay lekk Ndakaaru day nangu nit. Ndakaaru da lay lekk. mën na gëj naa fi. da lay lekk. Ndakaaru lii yaakaar naa léegi ma def juróom-ñaari at yoo fi doog. daa yàgg daa yàgg daa yàgg. a Ndakaaru waaye yaa ngi waaye gàlla awa sama soxna la ah, bàyyi ngooñ <laughs>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 209 75 notre site internet www.cefas-du6sénégal.com waaw waaw ñoom suñu ñun suñu dëkk yi ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo jëlloo waaw dañ dañ dañ daan jóge seen dëkk ñëw di force suñu dëkk mhm. may jóge foofu di foofu sa ñoom waaw lu yàgg dëgg sama nitu démb waaw sama sama soxna la noo def nag maa ngi sonnoo déedéet déedéet sonnoo naka koo gën ah, naaj bi ma ne moo changé sama carte d'identité <laughs> ma ne ma ne sa sa kii bi yow xaw naa ah. jongo ma de moo changé sama nee a ni sa loxo sama nee a daal moo ko waaw yaa ngi jàmm waaw may sant ba alhamdulilah ma ne mbaa fii ngay ndogoo rek waaw incha allah rabbi waaw kon xaaral xam naa daal fan yi moom maa ngi fi bu soobee yàlla ah. waaw fan yi maa ngi fi waaw xaaral ma dugg préparé la doo ñëw sanguwaale benn yoon dama war a waxtaan ak moom waaw d'accord waaw si kanam waaw baax na awa ci kanam kon ñu wax hmm. euh, euh, waaw way sama waaj yow mii. ah waay yàlla muur na say bët de. su mu toll nii ci lislaam moo lay atte. ba de sa loxoom ci galas de. lislaam dagg na say. ndaw si ku na ba xongu cur. Ah. ñu day manqué dëkk ba. <laughs> kii de boo ko gisee fële pël la pël. <laughs> jabar la de. Eh. sama jabar la ah. waaw xam nga ah, xam naa kay waaye damay waa dëkk ba. ñu nga fa man daal sàmb li doon samay tànk. da ngaa ñëwoon samay tànk mooy. xam nga nawet bi nu génn. waaw daanaka dëkk ba maa fa daan ci gerte. Ah! waaw jàmbaar nga. la ma fa am ci gerte daal. Mm. bëri na bëri waaye goo xam ne foo nat àgg na ko. Mm. maanaam daal buñ ko xëy ma am na junniy mbaam. way way yow noo def ba bay loolu. xam nga ren <laughs> damaa nax gars yi damaa teel a ji. waaw damaa teel a ji première ceebu. Mm. laa suul gars yi naan du baax. ma dabbali. lay baax yàlla ko xam. ma ba dabbali asamaan si taw tawaat gerte gi ni nii. gaa yi deqi man fi mu toll ni kenn gënu laa gëm yàlla jël la nga yor ci xaalis jënd ko jiw wàqi wàqi suuf suul ko ca. ah ko gannaaw. léegi loolu ko koy def kenn gënu laa gëm yàlla. bi loolu amee. Hmm. xam naa ndekki meeg yooyu mënu ma ci woon dara ma def santaane teel a pare. waaw chinois yi am benn ONG bu ñu àndal ñëw ci dëkk ba. waaw ah ñu ne ma nag gerte gi dañ koy jënd. waaye jënd mi. Hmm. ay sart lañ ca teg te xam nga ñun ñun béykat yi dañoo tàmm. sart lan lañ ca teg dañoo tàmm laa bëgg a nax lekk sax xaalis bu ko nangu dañoo tàmm mais amee. waaw léegi nag ñu di ma wutloo ay këyit. waaw man këyit yi may wutloo dara laa ci xamul. ndax dégg naa fu ñuy wax xaw ma ni nii yàgg. waaw ay ay ay compte banque ak. waaw lu ne daal wax na ma ko. Ah. léegi nag bi ma waxee man sama xel mi ne yar ci yow. kaay ma xamal la nag mbir. Uh-huh. jamono foofu la toll. jamono moom munoo liggéey ak ONC yi wala liggéey ak gouvernement bi wala liggéey ak kenn koo xam ni dafa am trace bu mu war a aw te amoo compte bancaire ak am kayitu société compte boobu nag lan ma laaj. waaye foo am kayitu société. ah banque boobu la parce que xaalis bi normalement foofu lañ ko war a wiire. xaalis bi xam nga moom dañ ne bi ñu calculé mbir bi ñu ko peesee ba calcul. waaw toll na ci set million aw teg na weccet xam ma fanweeri junni. xam ma fanweeri juróom loolu la fekk léegi nag ñu ne ma xaalis bi moom du loxoog loxo. compte banque lañ koy wiiri. ana gerte gi. gerte gaa nga ca kër ga puudar naa lépp peese nañ ko ba teg waaye xam nga nag rokki mi rokki ala rokkaani. waaw maanaam bu ma leen joxe gerte gi. waaw ñu wiire xaalis ma leen da ngeen di bàyyi ma dem Ndakaaru. waaw te Samb. waaw su ma demee. waaw ñun lijjanti suñuy kayit ba nga xam ne. ñaata taalan la may. ci mën na dépendre rek saa su paree rek man leen compte bi ubbi nañ ko. numéro baa ngi ni ñu wéeree ci xaalis ma baal baal baal damay woo awa ba am. kun am nga am na kun ma boole loon sax waaw. numéro ma ngi nii ci man waaye wax dëgg yàlla gën a jege gën a yeg waaw non bàyyi rek dinaa ko wax awa ba moom numéro ma ngi nii dinaa ko wax awa ba ñu ñu am ku ñuy toppatool këyit yi dinañ ko toppatoo këyit daal ci nu mu gën a gaaw man dina ma dinaa ko toppatoo ndax gerte ga bëri na bëri waaye bo xam ne dinaa ko toppatoo dinaa ko toppatoo ah, bàyyi bàyyi bàyyi dinaa ko toppatoo yow daal na sa xel dal waaw na sa xel dal dalal ak jàmm di lekk di nga naan di nga am foo tëdd ah, sa noonu la noonu la ko ci salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waa kër gi sama doom la waaw ñànku kii sama ah, xarit ah Ngooñ. Baye Ngooñ. waaw waaw Baye ñoo ñoo ñoo jëlloo. Ngooñ Ngooñ mm. Ngooñ. Jaañ Jaañ. Jaañ Jaañ sant Jaañ. Baye moom moo dàq bay gerte ci senegal dàq fee jaay ngooñ. ah mm, mm. Baye Ngooñ Jaañ ah say moom duñ xiif ah, moom. dafa ñëw fii nag war fee war defi fan. ah war ko war a def ay fan fii. waaw am na toppatoo ay kii waaw sa wi. waaw moo xooloon toppatoo léegi la benn mu def. non non yooyu yooyu mënoo koo toppatoo ci benn fan ay fan lañ koy toppatoo. da cee dafa yitte boo bëggee këyit nii. Hmm. ma ngaa xëy lan la ko ci benn hmm. Hmm. la wax këyit la liñ bëgg liñ bëgg yombut. waaw ah, waaw këyit la ah, ah, ah d'accord ñu bëgg yombut bàyyi fii lay ne. fale la. damaa bëgg fii ci kër gi day noppalu ci kër gi waaw. day noppalu rek koo kenn ci noppalu. waaye bàyyil noonu nag yow tamit. fat lekk dama ci biir demal. moo ñuy jugal dëkk ba ñooy lekk. ah non ak. yàlla fuñ fuñ fuñ tubbee da nga yaakaar ne salax taalibe rek ñu seqa. góor nag moom lekk lañ ko xam. demal dégg ah kii waaju waaju waaju. góor moom day lekk. bàyyi noonu damaa am gande nappil. sa baay mi bu ñëwoon sama kër dama ko jox mu lekk ba suur naan ba màndi. damaa wóor. magam yàlla am jëmmu toll man ñeme nga maa xool naa a wóor. bàyyil noonu nag yow tamit booy wax dangay wax ak. ah waay sàmm nag sàmm sa gune yi doy nañu war a. ah waay waay non moo tax man nag yow tamit ah noonu mu sedd. ah eh, eh sa néeg ayca damay waxtaan ak sa baay. sa waay nag kaay ma xamal la situation nii la demee ci kër gi de. Ah! te mënu ma waaw bu fekkee daal am na feneen foo xam ne li ma bëgg daal mooy kayit yi dinaa ko toppatoo waaye day ànd ak muñ nag ci kër gi moom moom kay lii moom ma gis waaw kay xam naa ne mënuma koo muñaale lu ëpp juróomi fan waaw léegi yow fexe maa topp toppatoo kayit yi ci nu mu gën a gaawe waaw kay ñu dem wiiri xaalis bi a ah, man ma ma ma mën a dem waaw xam nga kayit yi nag mënuñu koo toppatoo pe pe mën na ba suñee naa a sama caabi nekk tëj naa ko dégg nga waaw yéen a bokk nekk bay fi caabi ji ci doo ma dugalal mbuus gi ci biir bàyyi dinaa la am di nga naa tey caabi léegi. ñu naan ko bàyyi fi caabi ji. déedéet. sa bàyyi fa lay fanaan. pour pour la waaye kii mu yow golo ko jëloon nga indi ko ci néeg. Eh, eh! golo waxu la. damaa jub dàngal. Eh, ci ci biir booy man damay duma waat ay gono de. man déedéet waay nag tamit waaye damaa woor nag waaye. damay duma gone de. waaw bàyyi noonu rek. bàyyi noonu bàyyi noonu ah! bàyyi nag. gone duma rek. demal yow. yox la. waaw demal. jox la jox la. jox la demal. waaw dama lay wax rek. xam ñu sama la tala sa day. eh, eh way Samb. Samb. ak ah, sa waay waxoon naa la nag yow bu traversé ak ñii. ñi nga am ñeneen nooy doxale ak ñoom man seen bàyyi sax dañ may wax yii. Samb waaw mais wéruñu dama lay wax wéruñu wéruñu waaye nag nañ yemale seen pecc mi ci ah nag sa waaye nag këyit yi ngay toppatoo maa ko mën a toppatoo da ngay toog waaye kër gi nii la dama dañ may may jàmm nag mënuñ ko man maa ne bu ma ma lijjantil samay ah, pataas dama moom moom moo gën a pataas da benn néeg la am këyit yi waaw pataas bu ma fa demee ñu dem kër pataas liggéey li tax pataas fexeel dem kër pataas fexeel dem kër comme man wax dëgg kayit yi li ma ci gën a bëgg xam naa sax yaa ko gën a mën léegi baa ñu toog rek nga lijjanti ko waaw kon yi tamit da nga leen di moytu rek bu ñu awee nii nga aw na biir ma ma ma ma kii la toog sama néeg ba ba may nax ñaan ko muy indi caabi ji rek déet man kay su ma mënoon a bokk ak yow néeg sax mu may gën a ah soxla nag Vito Cocktail